donc l'OM Olympique de Marseille Dak ko bimu bi fait ay jafé jafé yu en ah, parce que euh, mën nañu wax dal ay euh, juróom ben euh, wala juróom-ñaari match yu Olympique de Marseille mi ngi jafé gagné donc ji officiellement viré mais remplacé nañ ko donc Jean Michel ki nga xamantene moy mooy bi nga xamantene ne euh, Côte d'Ivoire mom moko ko ci euh, Coupe d'Afrique des Nations kooku moo narane a coach Iliman ak Ismaïla Sarr c'est fait Kylian Mbappé a signé son contrat avec le Real Madrid 50 ans de contrat 20 millions d'euros par an donc euh, prime bi mu am ci signature bi muy 50 millions d'euros ñu war koo présenter fofu ci nouveau Santiago Bernabéu Real donc teena beneen star mondial kii di Roberto De Zerbi moom nag wax na non au Barça nee na demul Barça dimul demul Barça ëllëg ndaxte fi mu li mu fas yéene kontaan euh, concentré wu mooy Brighton bi nga xamante ne jamono yi mi ngi xeex tamit ngir dem euh, ci li nga xamante ne. moy compétir ci euh, Europa League wala Ligue des Champions loolu lay xeex donc désert bi désert bi loolu la wax Serre Ndour le jeune crack euh, italo-sénégalais euh, démb nak il a été buteur donc première bi avec Braga gannaaw bi Café Parisien Germain Allez donc démb la dougal bi bu reuy machallah mom timit tamit gone go gone Sénégal war na baye bàyyi hein. il a tellement de talent en milieu offensif bo xamante ne gabarit bi mi ngi fi tout techniquement il est à l'aise franchement physiquement tamit donc machallah Sénégal war na bàyyi xel bu baax a baax Manuel donc Manuel Akanji a tatoué l'emblème euh, des Super Eagles du Nigeria sur son bras gauche donc comme noonu ko gisee ci image bi donc manona na euh, présent représenté Nigeria mais defoonu ko mais euh, dafa jël carrière internationale comme joueur fële ci Suisse mais papa moom mooy nigérien donc manona fa dem mais malheureusement demu fa mais mi ngi woné que ne na fa te mi ngi koy bàyyi xel bu baax a baax def ko ci yaramam donc CAN 2025 bi ñu war organiser fële ca Maroc ci été bi la nar a am donc ci mi juillet bi ak mi août bi donc euh, ñi ngi naan le 20 juillet 2025 lay commencé nar a jeex je pense ay 11 euh, wala 7 juillet août euh, su ma juumul mais dinañ ci gën a ay leeral mais en cas FIFA ak waa CAF amoon am nañ accord ci euh, ñu organiser ko ci été bi contrairement ak bu ren bi nga xamante ne janvier bi la commencé woon Suajo euh, Kimmich moom nag euh, ma ngay xool nu mu quitté Bayern ci mercato estival bi nga xamante ne moom ñu jëm moom mi nga xamante ne cette saison donc Bayern mi ngi dundee jafe-jafe yu loolu tax mu bëgg kii di club ba wéy leen di like di jaa ngi jëf.